fa tabaarakallahu daal na xel bu baax a baax a baax. sëriñ bi kenn mënu ko jox àqam. sëriñ bi kenn mënu koo jox àqam. loolu bu ku seet diggante ak boromam diggante ak yonent bi. ku seet digganteem ak boromam ak digganteem ak yonent bi. xam ne kenn mënu ko jox àqam. di nga xam ne kenn mënu koo jox àqam. waaye lu lu ko tële tële tële nag. waaye lu ko tële tële nag. war nañu jéem. waaye war nañoo jéem. ndax jataay bu mel nii. ndax jataay bu mel nii. ndaje mu mel nii. ndaje mu mel nii. teewlu gu demee nii. teewlu gu demee nii. danoo war ci sëriñ bi. danoo war ci sëriñ bi. ci waxtu bu nekk. ci waxtu bu nekk. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. bari nay gàllankoor lool. bari nay gàllankoor lool. waaye nu fab sunuy waxtu yëpp. waaye nu fab sunuy waxtu yëpp. di ko sant di ko sëriñ bi. ko di di ko di ko sant. di ko sant. cant amul app. cant gu amul app. sant dig diggam ak boromam. sant ko diggam ak boromam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko ci bopp diggam ak boppam. sant ko ci diggam ak boppam. sant ko it suñu diggante suñu moom. sant ko it suñu diggante moom. yooyu cant neexut a boole. yooyu cant neexut a boole. te it moo nu war itam nag. te it moo nu war itam nag. nañu sant yàlla bu baax a baax. mu ne nañu sant yàlla bu baax a baax a baax. ba nu ba nu sunu borom booleeg sëriñ bi. ba nu sunu borom booleeg sëriñ bi. xeeraat nu ci moom. xiiraat ñu ci moom. ba nu bëgg ko. ba nu bëgg ko. yamale wuñ koog dara. yamale wuñ koog dara. gëm ko it. gëm ko it. suñ digganteeg sunu borom. suñ digganteeg sunu borom. mu doy nu sëkk. mu doy nu sëkk. biir ak biti. biir ak biti. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. kon sant rek moo nu war. te di ko jéem a nag sant. te di ko jéem a nag sant. jéem a sant gi weesuwul. jéem a sant gi weesuwul. dellu ci moom rek. dellu ci moom rek. nekk nekkal ko nekkal ko rek ci li mu bëgg. nekkal ko rek ci li mu bëgg. moom boromam rek la bëgg. moom boromam rek la bëgg. li mu ko digal. bëggul leneen. bëggul leneen. ci loolu rek la nekkoon. ci loolu rek la nekkoon. bañ ko xamee. bañ ko xamee. di ko gis. di ko gis. ba biñ ko noppee gis. ba biñ ko noppee gis. kon nag alhamdulilahi rabil alamin kon nag alhamdulilahi rabil alamin Mbàkke ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax nee na ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax lii ma wax lii ma wax ci sant gu nu war a sax ci sant ko ci sant gu ci sax gu nu war a sax ci sant ko dama ko wax rek nee na daf koo wax rek waaye noo ko bokk waaye moog yéen a ko bokk xam naa ne moo nekk ci yéen te moom xam na ne moo nekk ci yéen sëriñ bi rek sëriñ bi rek a nekk ci yéen. sëriñ bi rek a nekk ci yéen. loolu nañ sant yàlla bu baax. loolu nañ sant yàlla bu baax. te jëmee ko kanam rek. te jëmee ko kanam rek. suñu yitte jëpp. suñu yitte jëpp. nañ ko delloo sëriñ bi. nañ ko delloo sëriñ bi. bu ñu ko defee. bu ñu ko defee. danañ noppalu teeg ëllëg. dinañ noppalu teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañ defaru teeg ëllëg. dinañ defaru teeg ëllëg. yëngu yëngu baa ngoog. kon mu ngoog yëngu baa ngoog lii. nee na lii. dañuy jéem rek baaxantal rek. nee dañuy jéem rek baaxantal rek. waaye dañ ko waroon a def wird. waaye dañ ko waroon a def wird. ndaje mi ndaje mi yëpp. dañ ko waroon def muy benn wird benn wird. dañ ko waroon def muy wenn wird. boo xam ne dañuy am pastéefu. boo xam ne dañuy am pastéefu. bés bu set du def ko. bés bu set du def ko. loolu moo doon moo doon moo yey ci sëriñ bi. loolu moo yey ci sëriñ bi. kon nag ginnaaw mënuñu loolu itam nag. kon ginnaaw mënuñu loolu itam nag. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax a baax. delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. delloo ko lépp. delloo ko lépp. di ko yëngul. di ko yëngul. di ko yëngul ci su su su sunu lépp. di ko yëngul ci sunu lépp. defal defal defal defal ko defal ko ko addiya. defal ko ko addiya. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. di sant bu baax. sëñ bi nee mi ngi leen di sant bu baax. ak bokki taalibe yi. yi nu bokkal lii bu baax a baax. yi nu bokkal lii bu baax a baax. taxawaay bi ak taxawaay bi ak jataay bi. di leen sant di gërëm bu baax a baax. di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. waaw kon nee na mu ngoo ko rek. di sant suñu kilifa yi nga xam ne moom ñoom ñoom ñoom ñoom fi nekkal. di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañu fi nekkal. ñooñu ñooñu ñooñu tàggat. ñooñu tàggat. ñooñu tàggat ci sëriñ bi. tàggat ñu ci sëriñ bi. wan sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen di leen noo ngi seen noo ngi seen i di leen wan ne noo ngi ci seen i tànk. suñu kéem kattan. suñu kéem kattan. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. nee na xamuñu lu ñuy wax. nee na xolam dafa sedd guy. yaakaaram dolliku lool. yaakaaram dolliku lool. xelam gën a dal lool. jërë ngeen jëf Mbacke. jërë ngeen jëf Mbacke. jërë ngeen jëf mbokki taalibe yëpp. di leen sant leen gërëm. na ñëpp tàllal <laughs> na ñëpp tàllal. yegg ak yegg la rek. nee na yegg sëñ sëñ Fall sëñ Fall moom sëñ euh, euh, sëñ Moutala nee na ko yegg ak yeggal yeggale rek Mbacke waaw. na ñëpp nangu ñaan. amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke